non dëgg dëgguma li nga wax de nga ne nga ne waa ji waaw waaw waaw waaw waaw ala kulli xaal euh, bor moom nit ki bu la ko yorelee nañu xam ni jaamu yàlla la nga jël sa alal jox doomu aadama bi lebal ko ko loolu néew na wala bari na am na sax yenn riwaayu yi waxullahu aalam heure boo ko lebelee lu toll ni liñ ko lebal bés bu daan jàpp ne sarxe nga lu toll noonu soo demee ba digg ba jot nga muñal ko daan la bindal duubalu lu toll noonu léegi nag waa ji war na laa fay li mën a am mooy yënga ne ni mën na laa fay su boobaa dalaa war a fay loolu da koy dimbali mu dimbali la ndax digle bu mu diggante woon da ko war a matal maadaama mën na ko léegi mënu ko mënu ko lan moo fa nekk mooy yow nga muñul ko ba mu man ko soo ko mënoon a baal nag loolu mooy la gën allahuma lu dul ñu yéeg ci waa ji ak truand dañ ni nit ki dañoo yëg ci moom ak truand ku mel noonu waroo ko baal heure bu la lebee war nga koo topp ba mu fay la ndax bu jàppee ni man su ma lebee ma sàmba su ma kii mu baal la ma dem la day day lor yeneen jullit ñi loolu daal kon ñu xam ni jullit war nay baal mbokk jullitam tànk yëgul ci ñoom ak truand mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaleykum salaam non hmm. ñaari witr mënul am ci guddi gi. ba kay daal dañu ne aussi bu fekkee da nga bëgg a julliwaat ci guddi gi te yéexee ci witr boobu ba nga jógee ci guddi gi te julli boo paree nga witr. ñoom ñëpp ñoo ñu ko mën a jógee. ala kulli xaal euh, mbokk bu dee ni witr la nga xam ne moo ca gën mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ijalu axira salaatukum witra seen mujjeelu julli na ngeen ko def witr ca moom loolu la doon def sallallahu alayhi wa sallam mooy bu yewoo xaaju guddi julli mujj witr léegi nag bu dee xadisu abi hurayra boobu mu ne yenente ba alei salaam da koo dénkoon muy witr awaa muy tëdd ku mu ne abi hurayra xame woon nañ ko ci ittiwoo xam-xam lool kon xëy na moom daana soxla baril nelaw lu bari te it loolu mooy la nga xam ne mooy la gën a wóor te mooy soo ragalee ne euh, da ngay biddanti te xam ngeen ne léegi yàlla may nañu ay yu bari yu ñuy yee mais bu njëkk yombul woon su ko defee la gën mooy soo ragalee da ngay biddanti bala ngay tëdd nga def say nawaafil witre doo ko tëdd léegi nag mu des beneen cas waa ji def na ay nawaafilam def na witram ba tëdd yeewu na fajar gi def na ay waxtu mu nar a toog ku mel noonu la gën mooy mu mu def ay nawaafilam allahuma lu dul ni du ca defaat beneen witr ndax benn guddi kenn du ci witr ñaari yoon su ko defee daal loolu ñu xam ni mooy la gën na nga mujje witr bi la gën nga def ko boori jël waaye boo ragalee witral ci jël benn guddi gi su dee it yow nga guddi gi am nga temps julli leen lu neex ci yeneen i rakka mais bul baa muwaat la nga xam ne muy witr bi allahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ndax kuy nekk di waat cib sëriñ bokkaalekat la naam bokkaalekat la doonte ni nii duñu wax ni dafa yéegi ci bokkaal yi ñuy wax nii bokkaal yi ñuy wax nii mooy ñi nga xam ne da leen di génne ci lislaam na lu bari ci jullit ñi di waat ci ay sëriñ ngi dee jàppee ne darajee sëriñ bi kat daa màgg ci yàlla moo tax mu ciy waat dañ naan ko li nga def shirk la waaye loolu lañ koy tuddee shirkul asxar boo xamee ne nii du ko génne ci xeet bi nga xam ne dañ koy boole mu nekk mushrik waaye nag loolu muy def lu garaaw a garaaw la ca moo di ne ne ah, yonente bi alei salaam dane man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kuy waat waatal ci yàlla wala nga noppi wax na it ne ko waat ci leen dul yàlla yaa ngay bokkaale waaye daal du tax ñu ne dégg nañ mbokk bi mu ne barke Aboubacar wala barke Omar ñu ne kon léegi génn na ci lislaam abadan mi ngi noonu waaw bismillah waaw waaleykum salaam ndax ayaamul bi di àllarba la ba ajjuma wala suba lay tàmbali ala kulli xaal mbokk loolu moom suñu muskila la wallahi maa ngi yor sama portable ñaari message benn bi mi ngi eh, wax naan àllarba mooy fukk ak ñett beneen bi mi ngi wax naan suba mooy fukk ak ñeent te ñoo ñëpp ay mbokk yu góorgóorlu lañu kon bokk na problème bu rëy boo xam ne moo ñu dal muy problème weer bi problème weer yi moom wax dëgg yàlla sunu muskila la moom bu rëy rëy rëy rëy su ko defee xëy na loolu mbokk yaa ngi ci def ay jataay laaj na yeneen jataay waaye daal ixtilaaf am na ca am nañu jàpp ne tey mooy treize am nañu jàpp ne suba mooy treize mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw bismillah naam waaw jàpp lan xanaa bokkoo ci yow doo bëri ñëw ci jàkka bi waaye loolu wax nañ ci moom ay yooni yooni yoon mi ngeen noonu wallahu <laughs> subhanahu wa taala alam waaw bismillah ala kulli xaal bismillah waaw waaw damay ala kulli xaal comme ni ñuy wax rek mooy dañuy wax ne jàkk kenn amu fi place imaam a fi am place bala faa taxaw dañuy am ba pare loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma bu dee ne ndax vie am na ca la nga xamee ne ni mooy feneen fudulu kaw suuf li ñu xam daal mooy lii di doomu aadama muy nit ak jinne sunu borom yàlla mi ngi ñu defal suuf loolu la yàlla wax fiiha tahyawna fiiha tamutuna wa minha tukhrajun suuf daal doomu aadama dëkk loolu mooy la nga xam ne mooy li wér ndax yeneen planète borom bi subhanahu wa taala am na ay mbindaafan yu fa nekk loolu moom xawma lu koy saxal ci ci diine xawma lu koy dàq ci diine am ah voilà léegi la nga xamee ne daal moo di ne daal li li li li li li li wér moo di ne la gën a not mooy kaw asamaan malaaka yi ñoo fa dëkkee kaw suuf bàyyi ma yi ak doomu aadama yeeg jinne yi ñoo dëkkee kaw suuf ndax nag sunu borom yàlla am na beneen planète bu mu def ay leneen yi mbindaa fanaan loolu moom xawma ko waaye daal lii nit ak jinne ñi yàlla dajale yowmal qiyaama di leen atte ñu nar a dëkk àjjana ak sawara ñooñu moom ci suuf lañ nekk wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal bismillah waaw maaleykum salaam wa rahmatullah ndax xale bi ñu xarfal ko bi mu nekkee xale wala bi mu dëgëree lan moo ci la nga xam ne mooy la ci gën ala kulli xaal xale bi moom lañ ko xarfal avant muy majeur loolu mooy la nga xamee ne nii moom mooy la ca islam gërëm amma nag mi ngi dépendre yow ci seen aada masalan bu doon te ne ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mel ni Ibn Abbas nee na bi yonent bi di faatu mi ngi toll ci dugg néegub góor te ñoom dañu daan bàyyi ba xale bi xaw a dëgër ñu doog koo def donte ne ne am na yeneen yoo xam ne ay sukkandukaay yenn ci ay xadiis yoo xam ne dañuy jàpp ne xale bi fi mu amee juróom-ñaari fan rek mën nañ koo jongal waaye daal li ñu mën a wax daal nekkul ci ne lu ñuy tënkale leen ci bis sangam wala bis sangam xale bi daal nañu fexe balay majeur ñu daal di koy jongal loolu mooy la nga xam ne mooy jubluwaay bi gën a màgg am na nag ñoo xam ne xëy na ci wàllu médecine la ñuy waxee waxuñu ci wàllu sharia dañoo jàpp ne xale bu demoon ba euh, xaw a xaw a dëgër tuuti loolu mooy gën a am ci moom kattan que mu nekk liir ñu koy def mi ngi noonu waaye loolu moom mbir la yoo xam ne du lu ñuy teg ci sharia li ñuy wax daal mooy nañ fexe ba xale bi moom balaa majeur ay juróom nañ ko jongal wallahu subhanahu wa taala alam naam ala xaal kon mbokk ñu mujj ci mbokk bala rek insha allah barakallahu mu ne ala kulli xaal xarfal jigéen nañu xam ne ay aada la yu fi lislaam fekkoon aada yooyu nag islaam da koo saxal bàyyi koog ñoom nekk seen aada looloo tax boo demoon ci lu mel ni risaala dañ naan la xarfal góor ñi day waajib la waaye bu dee jigéen ya mukarrama la mooy lu ñu leen di tere la la masalan tey boo demoon ay gox yu mel ne Casamance jigéen ju fa jongul duñ ko boole sax ci société bi soo déggee ñuy xasal seen biir ba ne la yow xamoo dara mooy wane na yow dongoo dugul jaaraluñ ne fuñ la war a jaar loolu kon problème mu aada la waaye nañu xam ni lay sunna daal ci lislaam mooy góor ñi ñu jongal leen xam la yonente bi alei salatu wasalaam waxoon xamsun min al fitra juróom yi ci fitra la bokk ca mooy bokk na ca la nga xam ne mooy jongal ga ñuy jongal góor ña amma jongu jigéen loolu aada la ñam nekk seen aada tànk lor amu ca islam lu ca wax dara ca bokkoon na ci aaday arab bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ak soxna ya ñu mel ne ñu mu atiya di leen wax naan yéen ñuy jongal nga lawaay xool leen ni ngeen di jongale jigéen ñi te mooy fexe leen ba bu leen ca dagg lu bari te loo it muy wane ni sa maam yi depuis ay junni junni at ñi ngi jongal seen jigéen amuñu benn problème am maa nag bi tubaab bi ñëwee ñoom ñoo indi campagne contre la ñuy tuddee njongum jigéen ñi am na benn mbokk boo xam ne yàlla na ko yàlla yërëm muy sëñ Muntaga Taal waxoon na ci lu am solo mu ne gis nga boo gisee ñun ñuy xeex pour njàngum jigéen ñi ñu bañ ci réussir bis bu ñu réussir ci jigéen ñi ci góor ñi lañ jëm lé parce que ñoom boo demoon tey dëkk yu mel ne Europe ak yooyu dañ dañ ko tuddee mutilation sexuelle pour ñoom jël xale di dagg la nga xam ne mooy ak ngóoraam pour ñoom loolu ci mutilation yi la bokk donc ñu ne fi ñu tey mooy campagne contre njëngu jigéen ñi waaye bu ñu demee ba éradiquer ko ba xam ne kenn jëngalatul jigéen deuxième campagne bi mooy bu fi kenn jëngalu ci góor waaye yàlla bu yàlla yeggale loolu a na yàlla dëpp la ñëw sunna wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad